da danginsa da abokansa baki daya ma'abocin daraja halifar shehu musulunci sheikh ahmad ibrahim halifar shehu na musulunci a cikin halara baki daya sauran zuriyar shehul islam da muƙaddam na ɗariƙa da shugabannin addini gaba ɗaya salamu alaikum muna masu murna muna masu jin daɗi mu zama muna tare da ku a wannan lokaci muna tsakaninku a yau muna tare da jama'a da suka da suke tare da mu a wannan tafiya mai albarka wacce take tare da 'ya'yan bayero da masarautar kano da wasu daga halifofin shehul islam da manyan malamai da mazajen addini a kano da hukuma baki daya a cikin wannan ziyara wannan ziyara za ta karfafa dangantakarmu ahalin bayero da kuma ahalin shehul islam shehu alhaji ibrahim inyas wadda ita wannan dangantaka ta zumunta tsohuwa ce muke alfari da ita ubangiji allah madaukakin sarki ya ce mummune yan uwan juna ku yi gyara a cikin yan uwan wantakanku manzon allah ya ce misalin mumuni da mummuni kamar jiki ne idan gaba ɗaya ta motsa sai shauran jiki Yayi haka ya zo daga abu huraiya cewa annabi ya ce Rana alkiyama allah zai ce ina masu soyayya da ni yau zan yi musu inuwa a ranar da babu inuwa raitawa kaula garinmu ce mu ne muna gode wa Allah da ya sa abin da aka yi mana da dukkan alheri na kowace shekara koyaushe da mu da ku mu zama a cikin alheri amincin Allah ya lullube baki ɗaya ƙarshen addu'anmu da maganarmu alhamdulillahi rabbil alamin muna ƙara godiya da shehi dan uwa shautijani da sauran baƙi da suka zo daga gurare don su yi mana maraba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahir rahmanir rahim قمت نيابة عن سمو الأمير لأترجم ما قاله بلغة حوسة إلى الذين لا يعرفون لغة حوسة باللغة العربية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فضيلة الشيخ الخليفة الشيخ أحمد إبراهيم دام فضيلة نائب الخليفة الرجل الثاني في الحضرة الشيخ أحمد التجاني إبراهيم أصحاب الفضيلة أبناء الشيخ الخلفاء والمقدمين رجال الدين ورجال الدولة السنغالية جميعا di tàmbali nuyoom ci njaboot ak cheikh al islam alxaaj ibrahim Niass ci xalifa bi cheikh ahmad ak cheikh ahmad tidiane mi nga xam ne moo dëbije mbooleem ngan gi ak la nga xam ne moo ci war yëpp mu ne mu ngi sant yàlla bu baax ñëw gii mu ñëw ci Kaolack tey ndax ñaar ñeent fukki ak juróom mu ngi nekk amir te kóllëre la woon diggante baay ak baayam booba ba tey ay liggéeyam moo ko teree mën a ñëw pour feddali kóllëre gi ndokk bi nga xamee ne tey teg na tànkam ci Medina feddali kóllëreem googu ak njaboot ak baay gi ak doomi baay yi ak mbooleem yéen ñëpp nee mu ngi gërëm ñepp ño xamne ne nañ ko képp ko xamne taxaw nga ci bi ci ndakaaru ci yoon wi ci kaawlax ak fi ci Medina nee mu ngi gërëm ñepp di leen ñaan yalla yalla may leen jamm ak barké mu ne nak njabooti baay gi ak doomi baay yi ak doomi roxo yi ak talibé yi ñepp wonañ ko mbëggeel gu sell go xamne mom xamna du dara lu may gi baay bëggoon njabootam bëggee ko baayam Abdoulaye Bayero mu ne mu ngi leen di xamal ne relation bii nga xam ne moom la Baye dajeek buuri kanu ba ca 1937 ca Madinal Munawara ca aj mu jaayanteeg moom gannaaw boo xamee ne ay wali yu la ak ñu ko doon ñaanal waxoon nañ ko ne ko danañ la ñaanal nga dem aji waaye boo demee da nga dajeeg borom jamono yaa ngi dajeeg moom ci maqaamu Ibrahim ci misaabu rahmati boo dajeeg moom nanga nga jaayanteeg moom na nga ko xam yaag moom rek ka taxaw yéen a fay daje. muy seetlu loolu ci àjj di seetlu loolu ba daje faak benn nit boo xam ne moom kenn la mu ne ko azunnu annaka anta anta anta anta foog naa ne yow bu yaay kiñ ma waxoon noonu la xamanteeg baay jaayanteeg moom ànd ak moom aj gi ba aj gi jeex mu ne nag daje boobu baay daje woon ak baayam Abdoulaye Baay Yoro mu ne daje bu meññ la daje bu jëriñ la bu am firwi la ndax ca la Nigeria commencé dugg ci tariqa bi dugg ci fayda bi topp Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu loola tasaaroo na ci Nigeria yëpp tasaaroo ci yeneen dëkk ci àddina bi tasaaroo fu nekk te loolu mu ne barkeb daje ba moo tax ak roxoog daje ga ak leer ga nga xam ne mu ngoon seen diggante mu ne nag mu ngi leen di xamal ne ñëw na hmm? ñu ngi leen di xamal ne ñëw na ci jàmm mu ngi leen di tàggu mu ngi dem ak ci jàmm li mu bëgg a wax yëpp bari na waaye mu ne utal na Cheikh Ahmad Tidiane Niass dana ko jox discours bi bind na ko mu joxe ko ñëpp am ko moom tasaaroo bañ xam lan la fi ut si woon ak lan la fi doon dox ku nekk da nga jàng kàddu gi gis li mu wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bon ñu ngi jox kàddu gi Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Ibrahima Niass mu tëj jotaay bi. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن خاتم الولاية المحمدة سيدنا ومولانا أحمد بن محمد التجاني وعن صاحب فيضته الكنز الأعظم والنور المطلسم سيدنا ومولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ الحاج إبراهيم الناس رضي الله عنه وبعد لضيوفنا الكرام في هذه الساحة المباركة وبهذه الزيارة الفريدة من نوعها التي تتصل بعلاقة والدكم الأمير الحاج عبد الله بايرو ومولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه وهي علاقة روحية أزلية وأبدية علاقة إلهية حقيقية أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لأنها لأن مؤسسيها أقاموها على على <clears throat> على ذلك الأساس القوي وهي ما أشار إليه المجاهد الكبير الولي المكاشف له السيد الحاج عثمان دنفودي منذ ما قبل ظهور هذه الفيضة وصاحبها بقرنين ونيف ذكر أوصافه وأحواله وأعوانه وعلى رأسهم والدكم الأمير الحاج عبد الله البير لني وخ أك لني جيتون وخ أمو الدار اللي من تك لمتشان أك جرماني أك نيان جمالي كو تيم بولم نيغا خمني وسيرين أوتي بي نيغا خمني نيغا جمعون تيم بوكي أخري دي أك تالي بي jëme ko ci am ci gouvernement bi ci siñ gan ñu tedd ñii nga xam ne gani bàyyi lañ di gani pay bi di gani réew mi di gani gouvernement bi tam bi nga xamee ne yëg nañ ne ñii ñi ngi jóg jëm si ci ñoom yëgal nañ ko képp ku ko war a yëgal rawatina président de la république sàkku ci moom yiñ sàkkoon ci moom mooy escorte bi ak sécurité bi ak yeneen yu mel noonu waaye lépp loo xam ne lii sàkkuwoon na ci sàkkuwoon nañ ko ci moom defal nañu ko nañ ko bëggee woon wala nu raw sax nañ ko bëggee woon boole nañu itam ak membre gouvernement mi yëpp ñoom ñëpp ñu ngi àndoon taxaw ci suñu gannaaw lépp loo xam ne lii nekkoon na suñu itte ci ngan gi defal nañu ko ba mat sëkk loolu ñoo ko ci sant moom borom réew mi di ci sant itam membre yi gouvernement bi ni ki eh, ministre premier ministre ak eh, ministère de l'intérieur waaye itam ñu ngi ci sant suñu mbokk suñu xarit Ibader Thiam mi nga xam ne yëngatu na ci mbir mi yëngatu boo xam ne bii dañ ko fàtte mukk mboolem nag mbokk yi ak xarit yi nga xam ne dugal nañ seen loxo ci mbir mii ñu ngi leen di sant ñoom itam di leen gërëm di leen xamal ne liñ def gis nañ ko te bor la boo xam ne bi dinañ leen ko fay incha allah ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm ñu ngi sant gouverneur région bi moom itam ñu ngi taxaw ànd ak ñun ci yëf yi bi mu commencé ba léegi ba ci saas yi may wax ak yéen mi ngi nekk ak ñoom ci jataay bi ñu ngi gërëm itam suñu mbokk suñu xarit yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci kër kilifaay diine yi fu demee ni ki Tiwaawoon fu demee ni ki Tuuba fu demee ni ki Njaasaan fu demee ni ki Canaba ñoom ñëpp ñëw nañ ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm eh, ci yëg gi nga xam ne gi yëg nañ gi ak bokkal gi nga xam ne gi bokkaale nañ kook ñoom si gan ñu tedd yi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu leen ñal yàlla loolu moo di li nga xam ne moom lañ bëggoon a wax ci gàttal ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu ngi sant itam xale yi nga xam ne ñoo jógoon eh, dépensé seen i guddi ak seen i bëccëg eh, ci affaire bi pour ba mel nii mu war muy ñi nga xam ne ñoo ko doon organisé te nekk fële ca Ndakaaru ak itam ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci xale yi ñii amee woon organisation bi ñi nga xam ne ñoo amee set setal bi teeru bi ak képp koo xam ne kii yëngatu nga ci mbir mi wala nga def ci sa yitte mbaa sa ndimbal ñoom ñëpp ñu ngi jëme ci ñoom cant ak ngarmaan ak ñaan te xam ne ñoom bàyyi la ñuy jëflante te itam yàlla moo leen di fay ak waay salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu amiin amiin amiin yaa rabbi alhamdulillah réception bi nga xam ne nag euh, moom la ko Medina Baye teralee mi ngi nii yaa ngi gis euh, gouverneur de la région de Kaolack mi ngi ànd ak buur bi ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi euh, autorité yi gouvernement bi yëpp teeru nañ ko waaye autorité régionale yi itam dalee ci bopp bi di gouverneur bu région bi ak maire bi ñoom itam tàggoo ñëw buur bi benn yoon gouverneur a ngi noonu di nuyante ak Cheikh Ahmed Tidiane yi Mouhamed Khalifa a ngi noonu maire ci gannaawam ñoom itam def nañ seen wari gar ba mu mat sëkk wax dëgg yàlla tatagal nañ ko yaatal nañ ko setal nañ mbeddi Kaolack euh, mettre nañ ordre ci mbooleem fi buur bi war a jaar assuré nañ sécurité am booleek bi sécurité bi bàyyeekoo dakaar wax dëgg yàlla moom itam gàcce ngaalaama def na li ko war lépp ci ngan gi ñu noonu egsi nañ ci réception bi bokkul ci aada buur kanu moom muy lekk ci kanam yi nit wax dëgg yàlla moom du du lekk ci kanam yi nit motax teranga ji dañ koy defal rek pour mu gis ko ñim andal ñom mën nañ ci lekk waye mom dañ ko beral dañ ko ber mu nekk fenn pour mu jël tangam eh, la ci soob yalla waye ñom duñ lekk ci karam nit duñ sax ree ci karam nit foto cheikh ibrahim ñu sangi noonu ridwanullahi alayhi mi ngi non nak di tàggoog gouverneur monsieur le gouverneur gannaaw bu mu yandok mom bëccëgu lëmm moo ko teeru buntu kawlax ànd ak moom indi ko medina andak mom ba ci dalam bam xeye mu delu siat e fekke xew yeb ci kanamam la xew ci jumaa ji ci wasifa wi ci waxtan wi ba ci réception reer bi wax deug yàlla journée bu gudd la bàyyi ay soxlaam yépp ak yitem te ku bari soxla la ku bari yitte la wax deug yàlla ndax ku dénk lu yem ni région bu yem ni kaolak am nga yitte am nga soxla yu bari yo wara dox waye dafa xamni li tam ci la bok motax mu dag yeb jële mbooleem ay soxlam ñëw taxawu bur bi ba mu ñibbi ndax gan dafa am àq Abdou Latif Niass a ngi noonu eh, gan dafa am àq olof yi dinañuy wax ne gan kenn mënu koo tere gis ak nett li voilà audience sama nga ko ak premier ministre wax naa la ne président Abdoulaye Wade daf ko fekk ci tukki nee na bu fi nekkoon moom ci boppam moo koy recevoir waaye comme dafa tukki dafay jox ndigal premier ministre nan na ko accordel audience recevoir ko waxtaan ak moom eh, jël hôtel Teranga ne demi journée bi ñu nar a def ci Dakar nañ ko fa def pour noppalu añ fa ba pare soog a jël seen avion wax dëgg yàlla teraanga ji réy na lool lool lool wax dëgg yàlla ci bët eh, ku kuñ defal lu baax soo ko waxul ndax daanaka dafay mel ni yelloo defal la lu baax moo tax bi président dafee lii defal ñu ko defal ñu ko gan goo xam ne yàlla ak Cheikh Ibrahima Niass rek ko tax a jóg moon ko ne ko man Sénégalais laa jiite Sénégal yàlla doomu Sénégal tax laa jóge nii nga ñëw seet si ko man tam danaa la wan ne la fekk si nga koo xam ne man tam sama bàyyi la te ni nga ko fonkee fonkee naa ko ni kon tam danaa def lu ma mën ci yow wax dëgg yàlla moo tax teraanga ji na lool moom tax eh, Amir Kano ngi nii nag eh, bis bii ci Dakar itam bi mu ci génnee dem na nuyu ji Seyda Mariam Cheikha Mariam mi ngi noonu xam ngeen ko jàmbaari fàkk tëdd ji borom daaraay alxuraan nga xam ne ci du ndakaaru Euh, moom la fi yàlla teg muy jëmmal baayam ci jàngal doomi jullit ñi ak di leen teg ci yoon ndax alxuraan mooy tere bi nga xam ne yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci xadis ne xayrukum man taallama alqurana wa allamahu ki gën ci yéen mooy kiy jàngal alquran di ko jàngale sayda mariam yi ba muy tere alquran lu tuuti la ci kanam baayam ridwanullahi alayhi baayam yebal ko ndakaaru mu ñëw nekk fi ci kër wax dëgg yàlla kër gi mu nekkoon di fa sëy ko dara ak ubbi dara ci pegam mu ubbi dara li yalla def ci jaar ci loxom ñu mokal alquran wax deug yalla ci loxom fi ci ma sha allah bari na yalla yalla xeb doli dolli eh, dem na ba nga xamne euh, concours alquran bi ñi def ko def ci golf ba ba ko yalla yobbo yobbu na fa xale bo xamne juroom rek la am bam ne jël premier prix ba ci tari alquran kon kii moy mom la buur bi nuy ci tay mi ngi bindal ci cahier diftaru ziyaaraat nga xam ne gis nga ko yaa ko gis mu ngi bind anglais gannaaw bu bàyyeekoo ci Seyda Mariam nag dafay def euh, direct aéroport lii ba tey ci li ko tax a jóg la bokk euh, ndax ziyaara si Baye ridwanullahi alayhi euh, dàqwantewut ak ziyaara lenn ci njabooti Baye gi nga xam ne ñu ngi fii ci Dakar ci capital bi Seyda Mariam ci capital la nekk di liggéey di jigéen di liggéey liggéeyu góor am na góor ñoo xam ne sax mënuñ bi liggéey moo tax bi mu ñëwee Dakar mu ne yàlla fokk mu jaar fi comme addina yëpp a ngi pukkare aussi Seyda Mariam moom itam dara fi jaar gannaaw taalibe la nekk wan ko ne ko man itam teg naa sama loxo ci loxo yi nii ñëpp li nit ñëpp wax wax naa ko ñaanalanteeg moom yàlla sàkku ci moom itam mu ñaanal ko yàlla mu ngi nii nag di départ aéroport Dakar pour dellu ci njabootam gis nga accueil bi ni accueil bi meloon gunge bi noonu la mel dëgg yàlla mi ngi nii ñi ngi koy gunge ba tey oto yi président joxe woon oto yi demuñ fenn moom lañ xaar ca Kaolack bañ demee moom lañ gaare motaar yi taxaw di ko fi mu dem ci Dakar yépp mook terangay président bi ñoo ànd ba mi ngi nii génnee kër Seyda Mariam jëm aéroport loolu mooy li nga xam ne moo tax ñu tuddee Sénégal réewu teranga ak ak ak teral gan te Sénégal réewu teranga la mu ngoog mu ngi ñu egg noonu ci parcellu avion pour nag tàggoog waa Sénégal dana dem bu demee ba agsi ci kaw dana yëkkati loxoom wane ne maa ngi tàggu réew mu ma bëgg maa ngi tàggoog samay soppe yu ma bëgg maa ngi jugee foo xam ne ñaanal leen ma yàlla ma dellusi ci jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi alhamdulilah asalaamaaleykum. Eh, Euh, gannaaw ñibbi Amir Kano gis nga ñu ngi nii dox si ñun ñëw ci gàmmu Nigéria ndax gàmmu Nigéria mooy lan dañuy fàttaliku juddu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu yaa ngi gis ñu ngi egsi ci dëkk bi ñu koy defee muy Lafia welcome to Lafia délégation baa ngi noonu ñu ngi dugg si ci biir stade bi eh, lii stade bu bees la boo xam ne ñu ngi ko daggee ci Jos oh, muy stade boo xam ne muy dig boo xam dig digal boo xam ne daanaka du ma wax ne kanu ñoo leen ëpp taalibe waaye ñoom itam wax dëgg yàlla kenn demul ñu des Cheikh Ahmed Tidiane ngoog dañu wàcc Lagos rek enchaîné jël avion Muxtaar Sid Muxtaar a ngoog Alhaji Ousseynou Niass euh, délégation ba ngoog ñoom mooy sëñ Mouhamed Cissé ngoog Tahir Mbow ci fii ci stadium bi la dañu wàcc enchaîné jël avion ñëw Abuja oto yaa ngi ñu koy xaar ñu ñëw Lafia deux cent kilomètres la wala deux cent soixante kilomètres bu ñëwee noppalu ci ëllëg sa di bisu àjjuma xam nga bisu àjjuma ak euh, jullit boo xam ne tijaan la gannaaw julli àjjuma dañu ñëw teer si nag teew teew si nag ci xadratu jumaa si daara bi ñasa ngi doon toog euh, Bachir ñasa ngi den ak moom euh, Cheikh boo Bocce Mouhamed Khalifa ngi noonu Mouhamed Cissé Cheikh Ahmed Tidiane ngi noonu Boubacar doomam a ngi nii toog ci kanamam euh, taalibe yaa ngi noonu Cheikh Omar a ngi noonu dend ak moom euh, taalibe yaa ngi nii nag ci laafiya bàyyi tuuti ñes euh, taalibe yaa ngi noonu toog ñu ngi def kër si àjjuma ñoom dañu waxoon ne place bañ ko bëgg a defee jumaa ju mag ji grande mosquée ba taalibe yi xajuñ fa ñu bàyyi taalibe bañ dem ci grande mosquée ñu doyoke Bachir a ngi noonu toog dend si daara bi Niass ci si ñu ñu indi ko ci stadium bi nag ñu ne fi la ñuy defee kër sa ajjuma lu mel nii def na ko Amérique ubbi na fay ay jiite na fa ay wasifa dugal na fa ay nit ci lislaam joxe na fa tariqa tijaaniya joxe fa azkaaru tarbiya doomi Cheikh Ibrahima Niass ridwanullahi alayhi partout ci Europe ñu ngay def lii di gàmmo di jiite ajjuma di zikkar ajjuma di joxe azkaaru tarbiya lii rek mooy ndono bi nga xam ne moom la fi suñ sëriñ bàyyi oote ci yàlla tasaare tariqa jokkale bokk yi benn leen nit ñi dendale yi sore woon dégg nga emale nit ñëpp ñoom ñëpp toog ci keru laa ilaha illallah muhammad rasulullah loolu la doon liggéey loolu la fi bàyyi loolu la dénkaane it ne ku fi bàyyi gannaawam itam nanga topp ci tànk yooyu di ci dox bu délégation télévision gis nga awa njaayaa ngi noonu dend ak Adja Ndeye Fall ngi jigéen ñaa ngi tribune jigéen ñaa ngi nii ci biir stadium bi ñu ngay julli timis nag si kar nañu ajuma ba pare ñu julli timis Cheikh Ahmed Tidiane moo jiite julli timis gi gis nga nit ñëpp wàcc nañ gradé yi ñëw ci suuf ci suufu stade bi pour julli timis buñ paree dinañ wasifa buñ paree dinañ julli gee ba pare nag soog a waxtaan ñu nii di julli timis Cheikh Tidiane moo leen jiite ridwanullahi alayhi li waral sax mu mel ni nit ñi dañoo yëgul ci kër ajjuma bi dañ na leen ci grande mosquée la bañ dem fa autorité yi gouverneur bi yónnee ne grande mosquée bu fa sëriñ bi demee mën naa am nit ñi buuxante bi mën naa am danañ ko gaañ dana am bousculade bu métti te ay gan lañ te loolu daal ñoom sécurité joxul leen loolu ñu ne nañ ubbee stade bi ci dernier moment lañ ubbee stadium bi pour ñu defee fi si kër si àjjuma taaliba nga ca grande mosquée di ñu xaar ñu ubbee stade bi fii ñu defee fi si kër si àjjuma jullee fi timis loolu moo tax mu mel nii waaye bu ëllëgee bañ dem ca gàmmu ga incha allahu taala da gis ne suñ si karee woon ajjuma suñ leen yëgale woon ne place bii la kon suñ ñëwee sax capacité gradien yi mën naa am dana am risque dana dana am risque mën naa am nit ñi dañ fi solo solo goo xam ne du wóor sax pour turbine yi kenn xamul ndax dañ liggéeyal nañ ko lu am noonu déet moo tax ñu def jeu boobu ne grande mosquée la ba pare indi kilifa yi fii ñu si kare fi ajjuma ngi julli timis nag ñu ci taaya ji ju pare nañ suñ paree dañuy wasifa comme ni ñu ko xamee buñ wasifa euh, julli gaye buñ jullee gaye nag ba pare dal di dal waxtaan wi nag ñu ngi nii di wasifa tàmbali nañ wasifa wi ñu ngi wasifa gis nga ñi ngay gis nii yëpp ay doomi réew mi lañ doomu laafiya lañ ñoom ñëpp ñu ngi mobilisé wu ci lu Cheikh Tahir a ngi noonu mu ngi noonu téye kurus gi kaalaw jaayu mooy ñi mooy ñi nga xam ne mbooloo mi nga xam ne ñooy organiser gàmmu gi ak mu jot ñaar fukkeeli at la fu ne ak foog naa ak wala fu ñaar fukki ak benn wala ñaar yoo xam ne ñu ngi koy def ci Nigéria seet bu nekk seet yëpp dañ koy xëccoo waaye ku ne na yaa koy aye waaye dañ koy wantale ci seen biir rek eh, ku sa chance ñëw ñu ne la yaa koy aye yoro baye dañuy def seen boss dañ fekkeel ci awsé waaye ñoom itam dañ def seen bosu bopp ndax bul fàtte ne Nigeria dafa am ay xeet yu ko dëkkee awsa yoroba ibo ñooñu ñoo ñi ci gën a bëri te tegtalewul na ñoom rek la waaye ñoom bëri nañ ndax am nañ juróom ñaar téeméeri làkk yu ñuy wax ci seen biir ci biir Nigeria moo tax nigérien mën ngaa taxaw ci kanamam ne ko man nigérien laa fekk sénégalais nga sax du du la mën a weddi puisque dafay wax dafay gëm ne da nga bokk ci xel woo xam ne làkk wa ñuy wax moom déggut ko ci Yoruba yi nag 19 state lañ yoo xam ne Ibadan ci la bokk te Ibadan mooy ville bi gën a mag ci Afrique moo tax ñoom dañuy def fekkee li si aw si ba pare waaye dañuy def seen bosu bopp nag lii nag kilifa yaa ngi noonu toog nag ci stade bi léegi tey ñu door waxtaan wi لنا فيه نكون قد ذكرنا جميع أحفاد الشيخ وباقي أعضاء ومعنا أيضا عفوا الشيخ عبد اللطيف أبو بكر المسمى موجود والشيخ محمد علي السيسي موجود أيضا هذه الحضارة الإبراهيمية و... وعلى رأس هؤلاء جميعا فضيلة الشيخ الشيخ عمر حفيد الشيخ الشيخ أحمد تجاني وحفيد الشيخ إبراهيم ياسر رضي الله عنه في آن واحد وهو معنا هنا في هذه القاعة والشيخ جامي الشيخ هادي كما سميتموه مفتاح نيجيريا موجود معنا أيضا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين شيخ شيخنا شيخ أحمد تيجاني يا يقود يا ga Allah maɗaukakin sarki ya yabi shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam wanda yake ba sai an ce komai ba a kowa ya Shehu Ahmadu التجاني tsira da amincin Allah su ƙara tabbata رضي الله تعالى عن الخطم الكتم أبو العباس مولانا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه صاحب الطريقة التجانية القائل إذا سمعتم عني شيئا في بميزان الشرع فما وافق منها فخذوه وما خالف عنها فادعوه ذلك ليعلم الخاص والعام أن طريقته التجانية مؤسسة على الكتاب والسنة طريقة أهل الذكر والفكر والسلفية الصالحة طريقة الصدق والإخلاص طريقة الصفاء والوفاء طريقة أهل الفناء والبقاء طريقة أهل التوحيد أهل لا إله إلا الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ورضي الله تعالى عن صاحب فيضته التي قال رضي الله تعالى عنه إنها ستأتي في آخر الزمان إنها إذا ظهرت فستعم البسيطة كلها وقد ظهرت هذه الفيضة على يد مولانا وشيخنا وقائد وقائد مسيرتنا مولانا أبا إسحاق الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه الذي جمع به الله بين الشعوب والقبائل وألف به بين القلوب والأرواح وعرف به بعضهم بعضا فأصبحوا بنعمة الله إخوانا وفي حضرته تسمع جميع اللغات حيث يجتمع البيض والسود العرب والعجم بل وجميع القبائل والأجناس ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللهم صل على سيدنا محمد Eh, si si alxuraan yi gën a bokk mi ngi nii gannaaw bi ñu si kër juma ba pare ñu tatagal sëriñ bi ñu taxaw taahir taahir mii mën naa la moo amee munazama moo amee organisation gàmmu gi ñoom ñoo koy organiser seen mbooloo gis nga photo Baye Niass ñu ngi ko taf ci stade bi ridwanullahi alayhi eh, lii wax dëgg yàlla eh, bénéfice bu rëy la pour Afrique lii bénéfice bu rëy la pour Sénégal lii bénéfice bu rëy la ak ci xeet wi nga xam ne ci la Cheikh Ibrahima Niass bokk ridwanullahi alayhi mbooloo mi tey ku doxoon bëgg leen a dajale mbooloo xol yi tey ku doxoon pour bëgg leen a bennale la yàlla waxoon yonent bi ci alquran ridwanu sallallahu alayhi wa sallam ne ko law anfaqta law anfaqta ma fi l ard jamian ma allafta bayna qulubihim walakin allaha allafa baynahum soo dundalee woon li ci kaw suuf yëpp ci alal ngir tappe xool yi itam ni ko noonu doo ko mën waaye yàlla moo leen tappe barke boobu yàlla defaloon yonent yàlla Muhammad ci tappe xool yi barke boobu ba léegi yàlla nga koy defal jullit ñi te du yonent yàlla Muhammad wax dëgg yàlla waaye ay jullit lañ waaye képp ku am wiraasa Muhammadiya yàlla dana la defal loo xam ne da gis ne lii may gii mu yàlla may la ca may ak yonantu bala bàyyeekoon. Seyda Fatiha Ngok di doomu Seyda mu xayri moom itam di kenn ci jàmbaar nga xam ne moo nekk Niger ca Coota moo fa nekk di liggéey liggéeyam kii doomam la daayira bi mbooloo mi nga gis ñu ànd ak am la mi ngi ànd ak rakkam aynaaya ñu ngi doon toog e, sikar rek ak oote jëm ci yàlla ak oote jëm ci tariqa bi ak oote jëm ci faydatu Cheikh Ibrahima Niass ridwanullahi alayhi loolu rek mooy seen liggéey ci loolu rek lañ nekk ci la leen seen yaay jur seen baay muqaddam la woon ci la leen jur itam yar leen ci ñoom it ci lañ màgg liñ doon doon doon jigéen loolu amewuñ jikkooy jigéen ab Cheikh Abdoulaye Thiam a ngi noonu toog Abdoulaye Thiam président Ansaroudine ñu dal ak Baba Niang Bachir Niass Mouhamadul Mansour doomi Sëriñ Mamoun ñoo nga gis noonu ci image bi ñu feeñ noonu ñu ngi doon toog fekkee jataay bi ci dal bi ñu dalaloon ci laafiya wax naa ne lii eh, ku bëggoon a réaliser ci xalaat rek ak ci ak ci tega ak ak ci nettalay doomu aadama ak ci tërali doomu aadama mën naa am du àgg da nga jël ay siècle siècle te doo gis ne def nga dara sax moo tax bàyyi mi nga xam ne amoon na di nga gis nga kii eh, dafa dugg ci otoom wax dëgg yàlla li mu def man man xawma ko ndax mënuma xaw ma xaw ma xaw ma ban secret la ci oto ndax doonuma chauffeur waaye oto bi dafa taxaw ci kaw bàyyi oto bi muy daw mm, xam naa du jaaxal chauffeur si Sénégal xëy na ñoom danañ xam lan la waaye man xawma lan la wax dëgg yàlla gis nga ko mu ngi nii moom itam kenn la ci taalibe yi ñii dañuy amee seeni oto rek di wër fépp fu ñu dégg ñu géewal bàyyi ci àddina bi rek ñu jox gis nga ko oto baa ngi daw mu ngi zikkar laa ilaha illallah barhama sirrullah loolu la ñuy sikkar ñoom laa ilaha illallah barhama sirrullah la ñuy sikkar gis nga oto baa ngi lii ci biir stade bi la stade bi nag keroog ñun biñ fii ñëw lañ ñu daloon ci gàmmu kanu moom la ñu ragaloon moo tax kilifa yi nañu secteur heures lañu leen soxla ci stade ba gàmmu gi gaa onze heures la waaye yéen sept heures lañu leen fa soxla gis nga kaamil baa ngi nii dañu jàngal li njëkk a def mooy dañu jàng junnee kaamil jox ko bàyyi hadiya ci bis bi ci jataay bi balaa gàmmu koy commencé du dara nag junnee kaamil ndax nit ñi liñ kaamil yi liñ bëri bëri bëri ku ne benn benn këyit lañ la jox benn këyit rek ngay jàng daanaka am nañ sax ñoo xam ne amuñ kaamil bi pare dama ne lii ko bëggoon a dundale ci alal ngir def lu mel nii wala képp ku yaakaaroon ne lii xel mu sell lay doon wala ay tëralin la da nga juum waaye képp ku yàlla joxut wiraasa muhammad yi ku doon yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana ko jox lam la joxoon Seyda Ndeye Aida délégation Kaolack baa ngi nu bàyyeekoo Kaolack Mahmoud Mouhamad Mahmoud Mouhamad Bachir Sidi Arabi Chafia Mahdi Sidi Habib ñoom ñëpp ñi ñëpp am Seydi Mouhamed Mokhtar ñi ñëpp di doom yi kër gi di ay kilifa ci Medina Mouhamed Khalifa Niass Baba Ñang nag seen gannaaw seen jarab Mouhamadul Mansour a ngi den ak moom doomu Sëriñ Mamoun la ma Cheikh Mouhamadul Mamoun a ngi ñu toog Mouhamed Niass doomu Alxaaj Ahmadou moom itam Mouhamadul Mansour a ngi nii fii la gën feeñ ñu ngi nii toog Baba Baba itam a ngi nii Xasan Yaaro ñu ngi xasan dantata mouhamad bàyyi cheikh ibrahima ñasangook ñu tuddee ko bàyyi jikkox bàyyi tuuti abdoulaye thiam président sarudin cheikh tidiane yi doom alaaji huseenu ñu ngi ni toog alhaaji saan yaqub alaaji kawlax mouhamad touhami ñu ngi ni toog sayda ndeyayda sayda habiba ñoom itam di doomi cheikh ibrahima ñas sayda mu kalsum doomi alhaaji ahmadou ñas rahmatullahi moom itam di doomi alaaji ahmadou ñas ak Fat Ndiaye Niass doomi aji Ousseynou euh, Adja Awa Si moom itam di doom ci kër gi di secrétaire ci Serigne Mamoun di doom ci kër gi di taalibe ñii ñëpp bokk nañ ci nga xam ne délégation bi nga xam ne ñoo bàyyeekoo senegal am na ñeneen sax ñu génnagul ñoo ñëw teewee ci gàmmu gi gis nga stade baa ngi rempli ndànk ndànk euh, dama wax ne maa ngi doon wax ne ku yàlla jox dono nit ku nekk ka nga donn la la la la nga ku ne la nga donn da nga jël ci moom loo xam ne ku la gis xam ne diw nga donn bàyyi bi ko yàlla joxee wiraasa muhammadiya sallallahu alayhi wa sallam kawti mbootam yonentu yàlla muhammad feeñ na ci moom ci dajale gi mu dajale Afrique man gi mu leen mën a dajale ci lu dul alal ju bëri ci lu dul dara waaye dajale leen ci yàlla loolu yombut moo tax yàlla yombalal na ko ko moom mission la bu jafe chef d'état yi ñu ngi ut.